Aminata di Aminata Mangi juga nga jóge maa ngi si Gambi si Gambi Wow. Gambi waaw léegi ndax mën nga ñu wax lan la waaw man de am bi dafa si man bu baax sax munuma dara fu ma ni su ma suma buge buggee nelaw duma mun a tëdd dama de tegal ñetti ñetti jegeenaaw ma doog a nelaw tuuti waaw suma ma su ma xool bi def day yëngatu comme doom lu mu def si bir noonu la yëngate feebar bi dafa yàgg si man bu baax ma dara munuma dog dok bu sori munuma bale munuma def dara xanaa ñu defal ma waaw xanaa ñu defal ma sonn naa bu baax sax. bi nga nekkee ndax feebar bi yaa ngi ko doon faj bi nga nekkee Gambie. waaw maa ngi doon faj kay. nga demee ci hôpital Gambie nan lañ la wax. depuis ma dem hôpital MRC foofu laa njëkk a dem depuis ma dem hôpital Gambie ñu ñu bind ñu ne ma dem def rajo MRC depuis ma dem foofu kooku depuis ñu seet ñu ne si xool bi la nekk si biir bi deret bi fu mu dee daw ñu ne foofu lañ nekk dafay dugal ndox su may naanul garab damay néewi waaw damay néewi léegi comme garab bi su jeexee rek ma jënd te man aw ma doole yeneen saa yi dama dee am li ma jënd yeneen saa yi am li ma noonu laay nekk rek waaw waa Gambie ñu ne dama war a opérer ñu ne dama war a opérer léegi loolu laa ñëw fii pour pour ma seet ndax ñoom mun a opeer fii pour ñoom tamit nag dina ma gis feebar parce que dem naa hôpital bi ma dem hôpital ñu ne ma fukki junne laa war a fay fay naa foofu lii ticket bi junne léegi rajo bi tamit ñu ne juróom benn junne te aw ma loolu ak ordonnance bi yëpp mënu ma jënd sax maa ngi téye kaay bi mënu ma jënd aw ma xaalis amoo xaalis eh, tey nan nga koy dundee nga feebar amoo xaalis boo fajoo tey lan la def billaay xanaa coon dama son rek son son bu baax sax dama dama am nakar bu baax sax parce que mënuma dara su ma bëggee def suma liggéey mënuma dara mënuma defal suma bopp dara mënuma def def dara dog sa mënuma waaw dama son ci feebar bi bu baax sax ndax am nga wa amna amna fi naa fii suma beneen nijaay. lan ngay wax sa mbokku gambien yi lan ngay wax ñi nga xamni ñolay ñoo ngir ñu jappale la tayal pour ñu. lan ngay wax ñi lay seetaan. pour ñu dimbal ma rek ñu dimbal la tak dimbal mu dimbal ma mëna am lima faj ma mëna wër dal lo rek la ñaan ma mëna a rek dox suma soxla. amon nga jëkkal wa amna naa eh? mu ngi gambi wa Wow. Mom gisee ba léegi. waaw. moom ban taxawaay la am ci yow. moom moom tamit dafa de wax dëgg yàlla daw na ba mu ba amatul amatul dara su ma jëndee ordonnance sax yenn du mun am lu ma jënd sax noonu indi kayit yi ma na ba mu bugg a dee bu daw na kon amul doole. Wow. doole waaw. am nga ay doom. waaw am na ñeenti waaw. Euh, nga sa yaakaar ci tema ya kar pur dimbal marek mawir loreng la ya rek kan, ni dimbal marek ni menyan dimbal ni dimbal marek mawir loreng la nyan ni dimbal marek ya la tak fu ma nek ni dama son dama mo na tedde pur ma nelaw nelaw bu baax dama mo na dox dama mo na defal suma bop dara la ñu defal marek ni dimbal marek ya la tak loreng la nyan alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki ami internet bu association ànd taxawuñu ñu di TV bay Pape Niang dellu di leen nuyu fañ leen daan nuyoo ginnaaw tëraay bu metti boo xamante ni tëddoon nanu ko ak dëgg yàlla mënta ñàkk ci dundu doomu aadama tawat di wàcc ci sunu kaw waaye bu amee rek ñu daal di koy jëlaat lépp delloo ko yàlla sunu boroom xam ni moonu bind moonu moom moo ñu amal amee sunu lépp nag di doxal suñu mbir yëpp mën ñu fee jëlee ak fu ñu mënti jëm coobare yàlla rekk la ak lu ñu mënti dal ci kaw suuf coobare yàlla yi rekk la coobare suñu boroom kese la ñu tëddoon tëraay bu metti nag tëraay boo xamante ni ñu jël lépp rekk delloo ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala comme ni ko Baye Sawru di waxee Pape Niang tëraayam baaxul ndax bu tëddee rekk ñu baree bari dinañ tumuranke ñu baree bari dinañ jaaxle lool amaana loolee sabab sunu kàddu yi nga xamante ni na ngi koy bëgg yëkkati jëmale ko ci bépp ami internet boo xamante ni moom ñuy seetaan wax dëgg yàlla di jaajëfal ak a jaaraamaal ak a ñaan yàlla suñu borom yokk ay leeru Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul te tas ñu ci barkem bu màgg ba ak waajal li nga xamante ni moo di 18 safar wax dëgg yàlla dellu sib Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci tukkeem ba nga xamante ni ci lañu amee ndimbalul yàlla alhamdulilahi rabbil alamin war na képp kuy doomu aadama waaye mu teg ca jëre jërëjëfe sëriñ Touba gu amul àpp jërëjëfe Serigne Touba gu du dakk benn yoon ngir sunuy xol di gënti naat ci ay mbégte ci sunu boroom ndax moom de lépp lu mu amoon jébbal na ko yàlla lu mu jur jébbal yàlla kon ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ay taalibeem wax dëgg yàlla lu nu am rek sëriñ Touba moo nu ko war a gënal. di ñaanal bu baax sëriñ Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu saayaram gi ak mbooleem taalibe yi di leen ñaanal màggal giinu jëm yàlla nañu sunu borom. defal ngën gi màggal te yàlla bu mu doon sunu mujjantalu màggal yàlla nañu sunu borom defal yoon bu sedd ba lu mësta am am màggalu Touba 2022 yàlla bu mu am benn accident yàlla bu ci kenn loru tey nag kii nga xamante ni wax dëgg yàlla sunu mbokk la ci yàlla ndax ñoo bokk sunu maam aadam te dama jàpp ni Sénégal ak Gambie benn la lii nag su ma ko waxee sunu maman Rose mbay xol ba dana sedd lii su ma ko waxee sunu maman Rose Mbaye xol ba dana féex ndax moom mooy dimbali Gambien yi bépp kaa bu ma dugal mu bokk ak moom Gambi moom sunu maman Rose mbay dana ci tàbbal aw ñaqam jàppale ko te yàlla tax xam ni kat senegaal ak Gambi benn bopp la kenn mënu leen a xar soxna sii di Aminata li ko dal metti lool nag ba fu metti di yam waaye liñ ciy sàkku ci bonne volonté yi nga xamante ni ñoo ko jot a déglu ñu jàppale ko te yàlla tax xam ni fii mu ñëw immigré la fi fii mu ñëw du dëkkub cosaanam fii mu ñëw nekkin wi nekk sa dëkku bopp ak nekk ci dëkk boo xamante ni amoo fa mbokk wax dëgg yàlla nekkin woo mën naa metti lool ginnaaw ndijaayam bi nga xamante ni ba ñëwee ba léegi moom moo ko dalal di ko jàppale waaye doole yamul ndax ku amoon li gën sa mbokk du mës ci réseaux sociaux di talal loxo ngir ñu jàppale ko waaye moom mi di Aminata liko dal xam ni febar la boo xamante ni képp ku dal so amul ak jàppale tuuti mën na fitnal, fitnaal ndax dégg ngeen ko ni ko médecin gambien yi niñ ko waxee ni ko garab yi boo jëlul da ngay neewi te boo wal kon li ñuy ñaan yàlla suñu boroom yal na yàlla tàggat ay jaami yàlla yu seen xol làpp ay jaami yàlla yu am yërmande ay jaami yàlla yu baax ay jaami yàlla yu rafet xol ay jaami yàlla yoo xamante ni képp ku ñu gis mu tumuraanke sonn soxla ndimbal ñu war koo mën a dimbali te yàlla rek tax lii mooy li ñuy ñaan yàlla nañu dimbali Aminata nañu ko sauver dégg ngeen ko nee bi mu demee hôpital 5000 francs la yoroon mu dagg ticket bi a un ticket ba n'opi. ñu ni ko def 000 francs defaat un scanner ci 50000 loolu muy 80000 Ko ni bi muy Gambie Sénégal indi sax da koo muson mu tumuranke lool ci dëkk bi xaar bonne volonté tey xaar nit ñu baax ñi ñu dimbali ko te yàlla rek tax moom de tawat bii ko dal kenn ku mu daloon ci ñun wallaay boo tëddee doo nelaw ndax tawat la boo xamante ni mbirum xol allahu akbar xol mooy nit ay waay nañu jàppale Aminata mi nañu sauver Aminata nanu ko jàppale nanu ko dimbali te yàlla tax moom Aminata soxla na ndimbal maa ngi woo bonne volonté yëpp Seydina Mohamed Amar su déggee sama kàddu yi dina jàppale Aminata ndey Aminata tal Michigan su déggee sama kàddu yi dina jàppale Aminata ki nga xamante ni mooy Adja Fatou sek nekk fële ca Detroit bu déggee sama kàddu yi dina jàppale Aminata ñoom mama Bolo ñoom mama Tabaski mbooleem ku nekk ca groupe def te yàlla tax bu ñu déggee sama kàddu yi am naa njott bu rafet ci ni dinañ jàppale Aminata maa ngi woo and taxawu ñu wéré di Cincinnati Ohio kaa ñu jàppale Aminata lillahi wa rasulihi bu ñu wax ni du senegale rek waruñu koo jàppale wallahi lësi li ko dal day lu metti la te ni mu koy dundee boo xoolee Aminata dafa jeex takk takk takk takk ba nurootul nit ndax lan ñàkk gu tar mu ànd ak borom kër bu gore nee na sama borom kër lépp lu mu am def na ko ci man waaye ba léegi daal feebar bi di gën a yokk rek may sàkku ci yéen senegal di sàkku ci yéen bonne volonté yi di sàkku ci sama mbokk gambien yi nekk ci diaspora bi kaay leen ngeen jàppale Aminata te yàlla rek tax ngir ñu muccal ko ci fitna bii muy dund ci lu mu gën a gaaw ñu taxawu ko def scanner yi def li nga xamante ni mooy analyse yi ngir ñu mën koo wax ni ko opération bi ñaata la ngir jëmmi yàlla te yàlla rek tax maa ngi ciy xaar ay waay defkatu lu baax yi maa ngi ciy xaar ñi nga xamante ni ñooy sàkkukatu mën ngërmande yàlla yi na ñëpp xam ni Aminata mii nañu ko def sunu mag mbaa sunu yaay wala ñu def ko sox sunu soxna ndax kenn ku mu daloon ci ñun ci ñooñee lépp lu nu am danañ ko jeexal ci ñoom ngir sauver leen Aminata mii wallaay soxla na ndimbal